jubal yàlla nag ma jàmmal yàlla nag ma wërsëgal allahuma axfir lii warxam nii wahdinii wa aafini warzuqnii allahuma axfir lii warxam nii wahdinii wa aafini warzuqnii xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallama nee na ku nangu ne yàlla ab buur la nangu ne lislaam diine la nangu ne muhammad ndawul yàlla la mos na caf ka yàlla xadis bi buxaari nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam daaqa taama al imaani man radiya billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin rasula rawaahu buxaari waxtu julli yi suba waxtam dana tàbbi 5 heures 25 juróomi waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom tisbaar 13 heures 34 benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñeent tàkkusaan 16 heures 34 ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñeent timis 19 heures 35 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom gee 20 heures 46 juróom-ñetti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom benn